da nga doon filmé. am ko naaw yaa ngi may topp suba ak ngoon. ñoo bokk liggéey. waaw dama ko joxoo. mënu leen menacé ca defal ndànk. menacé wu ma ko. gis nga je veux que supérieur. ma wax bi ñu nekkee suba ak ngoon ku dégg bëccëg écoute téléphone yi ñu nekkee nañ ko bàyyi sa sa sa téléphone ak nii preuve la. da nga ñu doon filmé. topp. Ah, sa moto a repère nañ ko depuis 3 mois. Ah, yow filmé nañ ne du benn du ñaar. Ah, sa supérieur laay waxal man waxuma ak yow. je n'ai contre toi xam nga. mais say supérieur laay waxal dem leen. ngeen topp sàcc yi. ak jaaykatu drogue. yóbbu ko di topp nit ñi. ñu koy yóbbu benn droit ngeen ci amul. dañuy tàppale ñëw amul la dañ koy yóbbu. benn droit ngeen ci amul. beneen beneen pros beneen pros. moo jël xam naa fi ngay laa dëkk. yaa xam yaa xam maa ko jël. maa ko jël.